affaire noonu le président de Pastef Ousmane Sonko moo taxaw noonu ak euh, Abass Fall wax ji jarul muy gudd Macky Sall li ngay jéem du jàll ngay nga jàpp ci ñun mais troisième mandat du am parce que ñëpp loolu la. ñëpp Sénégal ak seetlu ngeen benn affaire bi mu jëlee réew mi ba léegi lac amul ndox bu rose. seetlu ngeen loolu bi mu jëlee réew mi ba léegi est ce que mos ngeen gis kilifa gu yeewu suba teel te yaakaarul ne doomam jàpp nañ ko ci ngont. est ce que mos ngeen gis yaay booy bu dem marché ñibbi si te jàmbatul. élève bu jàng nit ku feebar faj kon Macky comme munoo da ngaa tële nga jàpp ne tiital torturé xoqatal tëj ci kaso bi intimidé mooy sa solution pour régler Sénégal da ngaa juum parce que 12 mois moo la dese te nga dem ci nii maa ci nee Sénégal pare nañ fii nii toog jaajëf sama gars yi gis nañu Ousmane Sonko mu ngi ñu ak ñu àndal Abass Fall asalaamaaleykum comme nu ko gars yi yëpp waxee dëkk bi jamono ji dafa nekk sous tension et je crois que ne ngay arrêté ay ñoom nit di topp ay animal ay animal ji ay ñoom Ousmane Diagne ñoom Fadilou Keita Ami Dia ak ñeneen ak ñeneen da ngay gën a yokk tension bi. donc ñun tey benn interlocuteur la ñu am muy président Macky Sall ndax tous les pouvoirs ci moom la concentré te ñu koy wax ne ko comme ni ñu la ko waxee woon bee passé je crois qu'il faut libérer il faut libérer tous ces détenus politiques. à qu'il y une stabilité dans ce pays xam nga fii la ñu nekkoon il y a dix ans onze de cela di xeex pour que genre yi nii bañ a am Sénégal nag mënuñu ko naw démocratiquement fu nekk moom mu boobu di commencé di wàññeeku donc lillaahi wa rasuuli lillaahi nit dof sous peu ay avocat am dinañu déposer liberté provisoire ñu libéré ko mu ñibbi këram moom ak ñoom Hannibal Djim. l'essentiel mooy na ñibbi këram loolu la ñuy ñaan et on espère qu'on sera entendu merci beaucoup. Moustapha Gningue na la nëbëtu Moustapha Fata ay maa leen di ziar bon di wax sérieusement de di euh, dof on n'est pas on n'est pas des ennemis ay nit la ñu yoo xamante ni di bopp moo ñu boole mais li am solo ba am solo mooy jaajëf jaajëf li am solo li ma bëgg ñu comprendre mooy li ma bëgg ñu comprendre mooy mooy entre entre rappeur entre rappeur li ko xew entre gentleman la entre góor la mais bu demee ba féete ginnaaw la caabi féete ga ginnaaw ay nit ñooy wax ay nit ñooy wax liñ ko yéene yàlla xam na ni mooy mu libéré ko. ñu nekk si jàmm dem naa ba seeti ko si biir dem naa ba ko te ma ko wax solo li may taxaw di wax fii ci biir nit ñi boobu ma sax gëw ma ay audience quoi man gëw ma ay li ma gëm mooy li ma dund dëgg dëgg dëgg ma ko gëm ak ma ko yéene gëw ma ay waxu audience bu loolu weesoo nag bu loolu weesoo mooy euh, loo xamante ni dama koy wax te mu bañ a ko mooy li ma gëm mooy rab bi dafa yàgg souffrir ndax politique yi. rab bi dañu yàgg souffrir ndax politique yi man li ma gëm mooy du ma wax si ay politique li ma gëm mooy bi ma taxawee nit dof si jeel bi dama ne ko day dox sa dox nga liggéey sa liggéey parce que rappeurs yi yàgg sonn ci ay génération yu bëri fii yëpp rappeur rek a fi toog ay rappeur rek a fi nekk mais dañ ci war a génn ñoom seen bopp liggéey ma dañ ko laway jaboot donc nit dox en tout cas bu ba seeti ko li ma ko xamal mooy yàlla yàlla jëlee la fii te dinañ ci dox wax si ba pare nga xel sa njaboot ak bi nga xamante ni ñoom ngay teewal saa su ne jaajëf. jaajëf jaajëf Fata ñuy jox kàddu gi Abdou Karim Gueye Karim Kom Xaar.